Mansour ne lii ak ci ëtt bi. ak ci ëtt bi. ak ñii. ñooy Aynou Mady TV. di yëngutu ca Mbour. di yëngutu ca ci Abdoul Aziz ci Abdoul Aziz. ak maam Abdou Fati Niang. kon télé bi. buñ ko doon séddoo. buñ ko doon ceru Taïba. nee da cay am. moo tax. ñoom. ñu takku. ñu takku ñëw ci ñaari tànk. jël si fi. jël si fi. ñëw jël si fi. liñ fiy def. li ñu fiy pour ñi mënul woon a ñëw nax ngant. pour ñi mënul woon ñëw ngir ngant. ñu ñu man ñu mën ko seetaan fii. waaye ñoom mbir mi seen mbir la. mbir seen mbir la. kon ñaari tànk lañ fi ñëwee. mais kon yal yàlla fay leen. yal yàlla fay leen Aïnou Mady TV. ñëw ngeen foo xam ne nag. mais ñëw ngeen foo xam ne nag. ci ëttu Cheikh El Hadj la. ci ëttu maam Cheikh El Hadj la. te. te. maam Ablaye Sow Dagana daf ni. maam Abdoulaye Sow Dagana dafa ni. mos naa loo xam ni. mos naa loo xam ni. ku ko mos. koo raw ci nga ko rawee. koo raw ci nga ko rawee. ñu ni ko kan la. ñu ni ko kan la. mu ni Maulana. mu ni Maulana. Cheikh Al Hadj Malick. Cheikh Al Hadj Malick. zurtul waliyi alladi. zurtul waliyi alladi. ma zaarahu ahadun. ma zaarahu ahadun. إلا ونال إلا ونال ما نال ما نال من رب البرية من رب البرية ñu ni illaa wa yukrimuhu ne eh, am eh, dafa nekk koo xam ne dafa est-ce que jëmm la est maam Maodo doxalin la eh, doxalin la boo ko seetee ci jëmm doo ko gis xeeb na ko ndax jëmm dafiy jóge jóge boo ko seetee ci sant ci sant mu raw la ndax ku sànku ndax la ngay woote te nekkul ci yow la moo la sànk moo tax moom moo tax moom mu ni li ma mën a daj muy muy yaakaaru mu yaakaaru ma moom maam Maodo man sopp yonent bi la mooy sopp yonent bi sopp yonent bari na ku koy wax bari na ku ya وليس لي عمل وليس لي عمل وواجب طاعة وواجب طاعة وليس نفع وليس نفع على حب بلا مال وتابعا سنه Pape Serigne Babacar Mansour waaye waaye waaye jëwriñam a ngi nii di sunu baay di sansu ndaw ñi Pape Serigne Mbaye Abdou mooy sansu ndaw ñi eh, ku ko déglu te jëfe li muy wax man naa waat ne mën naa wat ni mën ngaa bañ am xaar ma yàlla sa diggante ak sa borom mën ngaa bañ am xaar ma yàlla sa diggante ak sa borom kenn du ko dégg. mu waxe noo xam ni. soo ñëwee. da nga naan. su ko waxee woon nii. su nga naan yàlla naa am sens rek. da bokk bokk ca ñey jëfe la mu wax. ci ñuy jëfe la mu wax. xam nga maam Hady Touré du san du tagg nit. mais xam nga maam Hady Touré du tagg nit. day wax jëfi nit day net li jëfi nit gaa yi way ko. day net li jëfi nit gaa yi daal di koy way. wayul maam Abdou de. mais wayul maam Abdou de. dafa wax li nekk ci maam Abdou dafa wax li nekk ci maam Abdou. daf ni. daf ni. waxam yëpp moo di. kitaabul ilaahi. xadiisul rasul ñu ni kuy xadiisul rasul mu ni shafiul umam kon Dakar mënta wuum gémmiñ ne kon Dakar mënta wuum gémmiñ gu mu duggul gémmiñ gu mu Maulana Cheikh El Hadj Malick waaye Maulana Cheikh El Hadj Malick nit du côté nit du côté diko changer ak lenen diko changer ak leneen di ko changé ak leneen وقلقه سلام والله زيارنا ñu may nu ay ngëneel ak maqaama man ma xool ko guy nuuroo baduru tama baduru ñi ngi nuyu ñëpp den ziyaara xam naa ci tabaarakallahu kàddu yu gàtt rek eh, ci wane suñu contentement ci bërëb bi nga xam ne fi la ñu taxaw di waxte eh, fu ñu mën a taxaw wax kontaan ci waaye bërëb bi moom bu fi waxee eh, mooy représenter suñu contentement ndax koo xam ni li nga xam fa fa nga ko xamee fa nga taxanee buñ la fa taxawee laaj la tabaarakallah wala ñu ni la waxal rawatina fii ci télé boo xam ni ki ñu ki nga fi ñu tudde télé bi ka fa nekk ka nga xam ni foofu foofu moom mooy judduwaayam mooy kii nga xam ne mooy mu assisu tariqatu Tidiane muy Cheikhuna Cheikhuna Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu muy Aynu Maadi TV fii nag mooy Taïba Niang di dëkku maam. cheikh Seydi El Hadji Malick du dëkk maam Abdou Fati dëkku maam cheikh Seydi El Hadji Malick la mu jël dëkk bi dénk ko jarbaatam di maam Abdou Fati ñang radiyallahu taala ngir xam-xamam ngir xam-xamam buum ak yiwam ku mbaaxam ak xam ni lim ko dénk mën na koo saytu moo tax mu jël ko dénk ko dëkk bi waaye see xaaj maay moo sanc dëkk bi ni sammaytuha taybatan yaa ixwaani tabarrukan bi taybatal adnaani man daal maa ko tudde medinatul munawwara ci turam yi la bëgg muy tayba waaye ngir barkeeloo Medina googu muy Medinatu Munawara fa tabaarakallaahu moo tax muy dëkk bii du dëkk boo xam ne dañ ko sañ si ceddu wala ñeneen dukk fi waaye Cheikh Xaaj maa ngi moo ko rëdd waaye jël jarbaatam dénk ko waaye yemul foofu waaye jël taawam tabaarakallaahu muy maam Faat si tabaarakallaahu daal di ko jël jox ko maam Abdou Faty Niang radiyallaahu taala anhu ki nga xam ni ci ziyaar bi ci loxoom la jaar ba njaboot ñëw di ko ziyaare fii muy maam Bachir Niang nga xam ne bokk na ci sët yi Cheikh Al Hadj Maay njëkk a teg bët tabaarakallaahu kooku moo ko meññi muy maam Faat si fa tabaarakallaahu ah moo moo tax nag gàmmo gaa ngi ni di gàmmo Tayba di gàmm goo xam ni ci kanam tuuti léegi rek incha allahu taala di ngeen gis Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz hafizahullahu wa raahu wa ayyadahu wa nasara ci ndigali ay magam alxalifa Cheikh Seydi Aboubacar Sy Mouhamadunil Mansour atala allahu umrahu maa sihati wal aafiya mu ñëw jox ñu fi message boo xam ni ñun taalibe yi tabaarakallahu dañ ciy jëriñu ñun nag fii la ñu am mooy suñu lépp fu ñu mën a dem baax na waaye damay wax tout le temps ñun Taïba mooy suñu buntu maam Abdou Fati Ñang bi ko seel xaaj Hadji Malick di samp fii dani ko képp ku ma soxla na jaar ci yow man ku ma soxla fii dinaa jaar ci yow ndax ginnaaw ba Cheikh El Hadj amee juróom-ñetti atam ya ba jàpp juróom-ñeenti ca njaar ne ba muy dem liggéey bu rëy bi mu fi doon liggéey di université bu mag boobu ki mu dénkoon liggéey bi bi muy dem mooy Al Hadj Abdoul Fati mi mu ànd koog nag ay rakkam tabaarakallah maam ma jama maam Amady Niang Fati nekk ca Tiwaawan tabaarakallahu waaye maam mag ñu bëri maam Omar Birima nga xam ne moo njëkk a ñëw ñëw di ko wétali ba mag ñi fi ñëwaat ñëpp fa kon nag. sëriñ bi ah loolu lañ noon barkeeloo ci eh, si suñu bis bi lii nag gàmm gàmma juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te Cheikh Alhaaj maa ngi ne wa amun summa yawmun summa shahrun tabaarakallahu at mi yëpp la weer yëpp gàmm la bis yi yëpp gàmm la tabaarakallahu tey nag màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñaanal nag ki nga xam ni moom la ay baayam wóolu ay magam wóolu ko ay rakkam wóolu ko tabaarakallahu muy ki fi nekk muy Serigne Mouhamadul Moustapha Niang nga xam ni wéy juróom di maam Bachir mam Fat Sey ko jur woy juróom di maam Ayda maam Ummoo ko jur Seydil Hadj Malick génn benn yoon si Alhadj Malick boo jëlaatee it ca kaw maam Fat si ba jur maam Abdou Fatek maam Ahmadou ak maam Ousmane bokk nday ak baay wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu si Adja Abdoulaye jërëjëf maa ngi jégalu nag macha